amiin amiin amiin amiin

Amin. Amin. bi rek des Amin. Amin. amin bu noppee nag ñu xajal ko tamit ñu ko nekk di ko nuyoo yooyu nañ ko xajal mu dem ci oto ba kenn bañ koo nekk ko dog kenn ku ne na toog fa nga toog ba mu jóg ba dem ba dugg ci oto ba amiin amiin amiin bu leen fàtte dara ko nangu ndigal li mooy na ñëpp toog ba bi dugg ci oto na ñëpp toog bu kenn na ñëpp toog. toog leen toog leen ba bi dem. Puff. Terus si es sama Jadi jadi.

kon yalla na yalla defal sutura ak tawfi ak xewal ak wer waaw ñun na ñaan la serigne bi yag fi lool daand ak wer rek sant nañ bu baax dal sant nañ talibi ñepp goor ak jigen mag ak ndaw jërëjëf jëf jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf fa ñëw ay fa fa yaara fa fa yaara waaw kon kon ñu ko déggee non rek sëriñ Bartale yassine mu ko waxee non rek waaw kon na ñaan wax amin rek nañ wax amin rek ndax mom soñu so so kii na mbooloo mi su yeewoo mbooloo mi rek mo taxit mom nekk fi dara daal di di di di kii waaw ñoom ñu ngi koy gisee nii rek mu ànd ak ay mbokku taalibeem waaw Fall waaw Fall Ndiaga ñëw eh, yéen yéen a koy seen instant yii noonu ak ay rakam daje fekk fi tamit di eh, daal tey tey xool yi fees na lu lu duuf nag kon kaa ñu bàyyi bàyyi leen ngeen dégtal ko. ngeen gis ko comme ni ngeen ko gisee nii rek waaw mbégte continué rek barki sëñ Bara Talla Yacine Fall mbégte continué rek barki sëñ Bara Talla Yacine Fall waaw waaw Fall ay yu faju sax dakk barki sëñ Talla Yacine ay yu faju sax dakk te yàlla bu ñuy jox lu ñuy nangu barki sëñ Bara Talla Yacine Fall waaw waaw kon xaa ñu jéem a xool sëñ Bassirou Fall ak sëñ Modou Abdoulaye Fall ba xam ñoom liñ seen nar a wax tey. baa ngi nan la ak euh, foo dëkk. man Serigne Aziz Ndiaye. dëkk Touba waaw. mu mu kan. mu Serigne Mame ah xanaa di sant rek di ñaan sama borom nangul suñu liggéey te fulal nu ko te laqal nu ko fu yàq yegul waaw ñu ànd koog suñu gars yi ak sëriñ bi di ñaan di ñaan sama borom nangul nu daal waaw ñu teew ko ay déwén yu bare bare bare bat cheikh tey daa mel ni yaa fi taxawal suñ maam jaay te suñ la fi gisee gis nañ suñ maam jaay loolu loolu loolu loolu daal doy na waar doy na waar ndax eh, sëñ maam sëñ maam moom lu war a ba jàmm ba jàmm lu tax ñëwul ndax am ñu bëri ñooy réere mbir naan sëñ maam ñëwul gisuñu ko tax maanaam moo naa ñu wéttali tax xamuñu lu tax mu ñëwul waa jàmm ku téye nag jàmm rek ku téye ndax daa nekk ca daara ja ca tool ya doon fa taxaw ab liggéey te liggéey boobu yëggul ci la nu yebal nag ñun ñëwal teewal ko fii nii waaye jàmm rek ku téye nag ñu ngi ko ñaanal saa borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak xéewal ànd ak mucc doole Cheikh waaye jàmm rek ku téye nag waaw ah, kon nañu ko ah, jaajëf suñu maam Ndiaye kon ah, am na solo na solo lool Fall Ndaw ak Cheikh Rafal ni Ndaw ak maam Cheikh Rafal ni ñu demee woon cib tënk Baye Ndaw doomi maam Babacar Ndaw la ak soxna fan ma Ndiéma Diouf. Baye Cheikh Ndaw ma nga ganee Tasneer Ganjul fa la ganee adduna ba gane ganee adduna maam Cheikh Rafal ko tudd tudde ko boppam xanaa doy na sëkk maam Cheikh Rafal kum tudd tudd la boppam xanaa loolu mooy dëgg dëgg ngëneel teewul nag mu def la nga xam ne def na ko ca moom mu koy doxantoo fu mu mën di jëm Baye Cheikh jooni jooni la woon lim yoroon fu mu jëm da koy yóbbaale fajuk aajooy jaam ñi la yoroon yor na ko nag ba jóge fi waaye taxut mu jël lépp yóbba maanaam bàyyil na ko fi ak njabootam waaye tamit dénk ko tamit sëñ am ni Moustapha Ndaw mi fi xalifa Baye Cheikh Ndaw mi ngi noonu loolu nag Baye sëñ am di téewu ko tamit moom it da koo tasaare ci doomi Baye Cheikh Ndaw yi tasaare ko tamit ci sët yi ku ci nekk lay sa wàll fa ko war a jëlee dong nga koy jëlee fa nga ko warut a jëlee doo ko fa jëlee li dong mooy wax ji Baye Cheikh goor yàlla ak Rafal la woon ni Cheikh Rafal doone góor yàlla ak borom Touba Baye Cheikh Ndaw noonu la doole doone ak Cheikh Ibrahima Fall dafa am loo xam ne nag coobere yàlla la doomu aadama da ciy maandu faxaanu li maa yurit ko wax lu ko neex lay def fam loo xam ne coobare yàlla la Baye Cheikh Ndaw Cheikh Ibrahima Fall coobare yàlla lañu coobare yàlla nag am ci xool am ci xëpp doy na sëkk ngay jégg yenn kaddu yi du ko jëmale ci ñoom am na ci gaa yoo xam ne yërëm naa sama bopp waaye yërëm naa leen ngir kaddu yi nga xam ne dañ koy yëkkati di ko jëmale ci gaa ñu baax ñi yërëm naa sama bopp yërëm naa leen yaaram yërmande ngi daw ci man di jëm ci yeen yenn kaddu yi nañ koy moytu di ko addu di ko jëmale ci kilifa yi diine yi ak kilifa aada yi ku bëgg muccuk aduna ak muccuk àllaaxira aduna bo fi newe da ngay fas yéene yow yow biir yow yow biti lolu mo lay dimbali ci biir lolu mo lay dimbali ci biti de ngeen man nak sama wax yi du samay wax waxi ñu bax ñi ñoy bawan sawan ci ñi sak lu bax ñuy jël waxi ñu bax ñoñe di waxat ngir ña bëgg lu bax di tey wax jojé and ak wax ja tamit di jëf ngir wax ja li rek la leneen loy laaj. Euh, nooyin géy maam waaw nooyin géy nag maanaam barab bam dëkk dama ko dut jàpp dama ko waa koy gol ba tey gol xam nga man samam xel lii ñëw ci samam xel lay ëpp li may jàpp nekk li ni ñiy wax